وجهت لله حمدا وكرمني بالمصطفى وبه لجاد بالأمن إن الرسول لسيف يصطدى به في لاحز المنن نهج رسول الذي ما مثله بشر نهج به فزت بالمفراد والسنن نصافة السنة البيضاء كاشفة عني سلاما وطاب القلب كالبدن كتابه سانني عن كل مفسدة وكف عني الأذى كما محددني لي بان أن كتاب لا إليه سلوك مثل الولي قاد فوق سول بالرسن علمي وديني وعاداتي بصلحات بينبه أهل العشر من وشني lil Mustafa inda rabbina si martabatun taxlu maratib ahli shiidi wal mikani allahu faddala xilman wa jallalo wala yakun قبله مثل ولم يكن خدمت خير الورى في البار خدمة من جزاء رب كريم فاعتلى بكني لقد نسمت لدى من سلسوا سمدا من قل ولاهما شرواه لم يبني قاتلت في البحر سيطانا وكبكبوه خير الورى المتبى في صعب تبني عليه خير صلاة الله علي أبواه علي من صلوات الله علي أبواه في الآل وصحبه من فازوا بلا درني عليه من صلوات الله علي أبواه في الآل وصحب من فازوا بلا درني ذل النبي رسول لله زللني وبتعا للذي قد حاق كالخرني يا رب صل بتسليم تسليم على سندي ولا آل وصحبه أعز الأمر والزمن مني تقبل بي مدهي بقدرك يا من لي جود به بالبشر والأمن Ibra Faal na ay maasam moom te de fo ko jot fo ko jot fo ko jot Sëriñ Bamba ko sempi mu raw bi naam na ay maasam te de fo ko jot ndax sëriñ bamba ko sem fi mu raw yaa rabbi naam faalaw inna suyuuxa waasabi suyuuxi maal ñooy say jaraaf ga seef yaa rabbi naam faalaw siwal mbakiinahum saadaatuna abadan nga xam ne dooñum te duñ yow yaa rabbi naam faalaw jamii'u fi joodin wa fi karamin lamboo nañoo yow nga yaa rabbi naam faalaw kullu sawaa والبيضاء معاشر ñu seede wax li ci yow يا ربنا انفعل وباب بيتك مفتوح لقاصدي te buy xaraf dal di bég يا ربنا انفعل بابك may yaali saafonte ak moom cheikh bi nam faala na rijaal sidaadil mukarramiina maan lamboon nañu yow nga ubleen cheikh نطاول كلهم لنيل باعي كذا تكن جتل لتيل يا ربنا انفعلا قد سار عنك سداد الأخيان قد دين لين كدر يا ربنا انفعلا ومن أتائك أولاد الدم أتوا ددو دراب في يوم يا ربنا انفعلا أولاد قرم عبيد عند بيتك زاه teyil ngir yediyee tey cheikh bi naam faala wa kullu man daama wa kullu man qad daama xatuniltnakon juróy te xam ne du yow yaa rabbi naam faala wala yudaani ko يا زعمت أحد buur yàlla moo la ko may yaaram bi naam faala wa man yumaari ala ma xatunil tuuna na mos moo xam ne bi الورد جميعا وافقينا توه di déglu tey sa ndigal yaa rabbi naam faalaw wala yu xaalifu amran man amartawum ñooy jaam yu dul daw di yokkat seex bi naam faalaw wa anta ajwadu axraani zamaani maan deful werante ci lii yaaram bi naam faala ahlul xawaaiji jaa'u wala siniina bukaa fi yooku del si dayre cheikh bi naam faala لك الولاية بيننا زاخرة سقوى اليوم يكفيك يا ربنا مفعلي على البلاقة والأسعار خاتبة ma suñu fee waxul lu mel nii Cheikh bi naam faala hum yamdahuuna faqat lakinnahum jahaloo yes nañu lii ma la wax yaa rabbi naam faala qad fuxtaaroona fii juudil wa fii karamil samaas gi tey yaa ci sut yaaram bi naam faalaw lam yam du xuusu wara kullal kiraama ma al ma way la man yo yaa ma saf yaaram bi naam faalaw waaw ma way la man مسا لو يمده سورا كل الكرام معا ويلمان يا مسا يا ربي نام فالا mbooloo mi ñaar loxo ci kaw ñu màggal Cheikh Ibrahima Fall ku yëkkati sa loxo ci kaw ñu màggal Cheikh Ibrahima yàlla na fi ñëw déwén يمدح زوارا الكرام معلوم ويلا يا مساف يا رب ننفعلا مامي سيرين شيخ نديجل امرهم فال يا ربي لو يمدو صورا كل الكرام معلوم mooy lu man yaa wara kullul kiraa mooy la mën yaa ma saf yaa rabbi naam faala wara bay faal ma way la mën yaa ma saf way la mën yaa ma saf yaa rabbi naam faala way la mën yaa ma saf yaa rabbi naam faala ويل من يا مسف يا ربي نمفالا ويل من يا مسف يا ربي نمفالا لو يمدؤ سورا كل الكرام معان ويل من يا مسف يا ربي نمفالا السماء يا مساء لو يمدغ سورا كل الكرام ما مويل من يا مساف يا ربي نام فلا سورا سورا بمع المويل من يا مساء لم يندوا سورا كل الكرام مع المويل من يا مساء يا ربي نمفالا لم يندوا سورا سورا مع المويل من wayla man yow yaa ma saaf yaa rabbi nampala nampala ma wayla man yow yaa ma saaf yaa rabbi nampala ma wayla man yow yaa ma saaf yaa rabbi nampala